dafa def tey jii ñu ñëw fii nga xam ni fi la daayira Nihmatul Alamina mooy association de Laobé du Sénégal ñoom ñëpp mbooloo ñoom it ngir def seen participation ci li nga xam ne mooy ouverture wu jumaa yi fii ci HLM ñu soxna si ñu ngi lay nuyu. maa bi. tur wi na la. soxna Ami. waaw ngeen ma wax lan moo waral seen daje bi fii nag. waaw daje rek gis la rek. ñëw rek rek di ko liggéeyal. waaw doon ay murid rek di tarbu rek. Mm. barke sëñ Touba di jaayante sëñ Touba rek nag ba bëgg am ngërëmal sëñ Touba ak gu yokkute nag gu wér a wér sëñ Modou. moom waaw moom xam naa ne ku ni lawbe sam xel nekk ci sëriñ Modou Gala Sow moo mel ne tey taxawaayu sëriñ Modou Gala Sow rek ngeen fi taxaw. waaw loolu léegi gannaaw loolu maanaam xam nga bu nee lawbe rek xel yëpp dem ci caw juug. mel na ne caw jug yi bari na de. ah tey moom bari na moom tubaarkàlla wax dëgg yàlla lépp rek mbiri sëñ Bamba la. waaw ah, mu ne ko ci lépp rek mbiri sëñ Bamba la ñun amuñu ko du sëñ Touba moom lañ yaakaar tey ak ëllëg barke sëñ Fall. mel na toog yi nag moom da ngeen di toog rek di joxe. waaw dañuy toog rek di benn rek di liggéeyal sëñ Touba rek waaw ndax waa mu xaddimaat tamit ñu ngi fi suñu waa daara ñu dëkk Caaray Euh, soxna Binta Niang jëwriñ la soxna Fane Mbacke si la Baye Tafa ak soxna Sëñ Mbacke Niang ñëpp daal tubaarkalla macha allah ñëpp a ngi fi wax dëgg yàlla suñu limee dañuy juum suñu waajur yi ñëpp ngi fi di liggéey sëñ Bamba rek ñu sëñ Bamba rek ka ñu ñor barke sëñ Fall. waaw mu comme ni ma ko waxee rek mu mel ni law bi daal ñoom ñëpp booloo foo dem rek law bi maanaam yi Sénégal yi maanaam fépp ci région yëpp ñoom ñëpp nañ dañoo ñëwoon fii ci HLM di def seen participation di togg di jox nit ñi ñuy lekk guddi ak bëccëg bu ko defee ñu àggaat ba ci kanam ngir mën a gis ñi nga xam ne ñun ñooy kilifa yi. comme ni ñu ko waxee rek fii ñu nekk ñu ngi nekk euh, li ñu naan euh, l'histoire retiendra ku xam jumaay jumaay Masaalikul naan ji pàkk boobu dafa am pàkk bu mu dendaloon ba bi nekk ci biir jumaa ji ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon muy waa CNTS ki leen jiite woon di Maja Diop. tey yàlla dogal ne fii ci këram fii ci HLM fi la association des lawbe du Sénégal nekk ngir wàccaay li nga xam ni mooy ouverture jumaa ji ñu ñëw fi nag seet si leen ngir laaj leen ñoom it seen taxawaay ci li nga xam ni mooy bis bi ndax ñoom it kenn demul ñoom ñu des ñu ñëw nag daje fee ki nga xam ni mooy seen jëwriñ ñoom ñëpp mu Cheikh Mouhamadul Fadal saw mii su ko defee moom xam naa dañ koy bàyyee kàddu gi nuyu ak moom mu mën a présenter li nga xamante ni si mooy waa équipe bi ak mm, li ñuy wax naan mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo jiite euh, association des lobbies du Sénégal Serigne Fallou ñu ngi lay ziar. jërëjëf ñu ngi lay delloo ziar baax a baax. Serigne Fallou maanaam li ñu lay laaj lu yomb la. Mhm. gis nañ ni daal lobby yi daal ñëpp dañoo booloo. ñëw def fi tànt bu rëy. nag yi nekk fi. Mhm. togg yaa ngi fi. Mhm. bari na fi mbooloo mi ñëpp bari ñu bëggoon xam seen taxawaay nag ci bis bi. dëgg la sunu taxawaay ci bis bi. yàlla moo dogal ñun ñuy ay julit yàlla dogal ñu de ay waa kër Serigne Touba yaakaar ku yaakaaroon ku ci nekk fami nag ñu am ay ndimbal yu bëree bëri ndimbal yu ñu am mooy bokk gi ñu bokk lislaam bokk waa kër doon waa kër Serigne Touba ba noppi nag yàlla defal ñu nag ñu nekk benn famille boo xam ku gën a bëgg sa morom nga ne kii ah léegi nag bi nga xamante ni maanaam ñun àndandoo nañ di jaamu yàlla di liggéey Serigne Touba muy aat yu bari njëkk sax ñun ñu juddu suñu ay waaju daan ko def ba ñëw fekk leen ci tey ji yàlla moo dogal ñun ñëpp ñu di ay taalibe àndandoo di liggéey sëñ Touba di àndandoo di dem Touba di ñëw di àndandoo di dem Porokhane di ñëw di àndandoo ci yeneen événement yi nga xam ne waa sëñ Touba ñoo koy ñu àndandoo dem liggéey fu sëriñ bi yaay tey nag yàlla moo dogal sunu sang sëriñ Mountakha Mbacké woote liggéeyu jumaa ji ah bi mu ko wootee nag ku ne dégg na woote bi mu ko wootee nga xam moom bàyyiwul kenn monde bi yëpp la woo ñu nit nag ñu xam ne nag sëñ sëñ bi bu wootee képp ku woo woo sunu gan nga ñun rawatina ñun taalibe yi nga xam ne ñooy yeewoo Ndakaaru lii nag moo tax sunu bokk yëpp dajaloo ñi fi nekk ñi nekk bitim réew ñi nekk ci région yi ku mën a doon te nga doon taalib sëñ Tuubaa rawatina nga dib lawbe ñu boole sunu bopp muy di benn buum boole sunuy alal boole sunuy xel boole sunuy doole boole sunu lépp ngir lan màggalal Serigne Touba bisam bii nga xamante ni moom mooy ñëw suba ndax Serigne Touba bu bu fekkente ni ubbi jumaa ji moo ko jëral mu jóge Touba ànd ak mboolem koy tif kilifa waa ci dëkk bi war na ñoo xam ne ñu am nañ gan yu màgg yoo xamante ni buñ leen teralee ñun suñu teraangay àdduna ak alaxira na ci loolu moo ñu boole lépp dugal suñu lépp ci ci teraanga jooju ñun taalibe yi nekk biir dakaar moo tax Allô Dakar ñëw ngir jéem a couvrir li nga xam ne mooy événement bi eh, sëriñ Fallou xam naa ne laaj bu gàtt rek la mm-hmm. mooy ñun ñi nekk Ndakaaru mm-hmm. Masalikul Jinaan bu ñu ko waxee jumaa ji mel na ni suñu borom moom daa fay Serigne Touba. ndax bi ñetti guddi ndakaar bu ko bu ñu ko xalaatee. li Serigne bi waxoon ni bu ma ko xalaatee damay sax jël arme ngir mën a ngir bëgg a tubaab yi ndax sëriñ tubaa xañoon nañ ko julli xañ ko liberté am dugal ko ci néeg bu lëndëm dugal ko ci néeg bu am ay pont nga xam ni wax nañ bi fa sëriñ bi duggee daanaka da koo jam ba sar ci biir tànk bi waaye tey ku ñëw ci jumaa yi Masaalikul Jinaan xam ne lu nasaraan yi tegoon sëñ tubaa rek mhm. suñu borom fay na ko tisbaar gi nga xam ne sëñ Muntaxaa ñëw na fi ñu tett ko bi mu mhm. ñëwee dugg fi la julli tisbaar julli ko ci néeg boo xam ni yaatu na nooy na am na clim leer na naañ mhm. maanaam lépp ñu xooy ko or mu tiim ko nga xam ni kon liggéeyal suñu borom dafa am solo loolu nag ban yëg-yëg la ci waa ndakaaru am waaw dëgg la loolu yëg-yëg bi ci waa ndakaaru am ñëpp nag ñoo ko yëgandoo hmm. amul murit amul tijaan amul xaadir amul bàyyi laay ku mën a doon ngay julit hmm. soxol seet na ci fan yi ñu toll soxol seet na guyi guyi guyi guyi guyi xam nga ne Sëriñ tubaal liggéeyaloon na suñu borom sunu borom fay na ko rawatina nag ba mu nekkee Gabon sampoon fa ñeenti bantam yooyee bëgg tabax jumaa bëgg bëgg faa def euh, euh, jaamukaay bi yàllam gars yi ñëw football bant yi ne bant yi du fi taxawee ne ko sëriñ bi génneel fii euh, sa jumaa jii nga fi sa jullikaay bi nga fi taxaw xaju fi bu ñu xatal maaraabu daal di yàqati jullikaayam boobee loolee day sëriñ bi yàlla fay na ko ci loo xamante ni ku ne xam na ne fay gi moom fay na ko ba wis ko bi ci toppit mooy guddi yooyu ñuy wax ci Ndakaaru nga xamante ni sëriñ bi amoon na fi ay coono amoon fi ay métti yoo xamante ni ku ne xam na ne góor mu sadaj lu ñu toll yàlla fay na ko ba wis ko sëñ Touba naxul yàlla wala yàlla naxu ko jërëjëf sëriñ Touba naxul yàlla waaye yàlla naxu ko euh, xam naa liñ ciy topp rek du bari ñu laaj ko suñu suñu jëwriñ bi jëwriñ liñ la bëgg a laaj mooy jàpp nañ ñi daal lu mel nii ngeen taxawal xam naa ne ay loxo neen defaru ko ñu bëggoon xam ca yan ci lan ngeen xayma loo xamante ni jëm na ci wàllu togg yi wala ci wàllu naan yi wala ci wàllu gàtt yi loo xam ne daal xayma ngeen ko ngir mën koo def ci bis bi muy loo xam ne toll na ci xaalis ñu bëggoon xam ak taxawaay bi. xayma bi daal wax dëgg yàlla li ko li sabab li mooy bi ñu jàppee ne dañuy inauguré Massalikul Jinaan sunu mbokk yi nekk ci diaspora bi dañoo def groupe WhatsApp bu ñu duppee. Masaalikul Jinaan ci lañuy ñuy waxtaane di informé wante di toppatoo natt ba sunu bés bés bii tey ñëw mënuñu ne nag man mii mii secrétaire général bi mënu ma ne lii mooy budget bi ndax lu ñëw rek ñu xëpp ci lii budget bi daal ñun mënuñu koo xayma ndax sunu yéene ëpp na sunu njoot waaw à peu près waxoon ci ne dañ koy def sunu budget 5 millions dépassé nañ ko wala def nañ duubal bi ndax xayma lu jëm ci Serigne Touba ñun mënuñu koo xayma ndax lu ñëw rekk ñu def ci loolu daal laa la doon wax ci affaire budget bi. à peu près dépassé nañ ko pour la communauté des Lawbe di Sénégal ñi nekk bitim réew ak ñi nekk ci réew mi ñëpp Lawbe monde bi yëpp ñoom ñoo dajaloo seet jël seen alal jël seen dërëm xam ni Serigne tubaa woote Serigne tubaa nag moo daj àdduna Serigne tubaa moomu moo ne woon àllama ni rahmaanu fii safina bi ànd na ni xaddimu sil madina Serigne Touba moomu moom mooy xettali jaam ñi Serigne Touba moomu moom mooy dimbali jaam ñi waaye nag Masaalikul Jinaan nekkul ni murid yi rek moo tax ñu defar ko Masaalikul Jinaan payoor suruñu borom la ci Serigne Touba ci nga xamante ni si booba nasaraan ñi ngi koy jël ngir gàllankoor lislaam ngir bañ lislaam dem fekk na booba sëriñ Touba ci boppam yonent bi ci boppam moom moo moo ci sababu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom ci boppam amul woon gannaawam kenn koo xam ni war naa mën a taxaw taxaw taxawaay yonent ba lislaam jëm kanam ndeke booba nag Serigne Touba mi nga xam ni moom la yàlla jël maanaam ngir mu taxawal lislaam lislaam war a mën a am ndam ñu nar koo xañ Serigne Touba loolu nag moo waral masaaliku jinaan gi nga xam ni kon lislaam am na ndam yoonu murit am na ndam ndakaaru am na ndam adduna bi yëpp am na ndam muy tiijaan muy xaadir muy laayeen ñëpp ñëw nañu àndandoo ngir nag xam ni lii ñu am lislaam rek moo ko tax a jóg waaye gàcce ngaalaama Serigne Touba Serigne Touba sonal nañ ko ci géej gi Serigne Touba sonal nañ ko bàyyi nay bokkam bàyyi nay doomam bàyyi nay dëkkam lépp rek ngir lislaam lépp ngir bis bi kon ñi ngi ñi ngi jaa jëfal ñi nga xam ne mooy suñu bokk association des lawbe dégg nga li ñu wax neewoon nañu suñu budget on était programmé à 5 millions mais yàlla def na tey weesu nañu 10 millions di dem ci kaw nga xam ne sëñ moo ni mel loo jàpp ni rek moom doy na bu boobaa ndekete boobu da ngaa xamul sëñ tubaa kon ñu ngi leen di jaajëfal ànd ak yéen ba ci kanam waaye nag ñu teg foofu baaram rek bu ñu demee ba ca guddi daañu xam ne lawbee Sénégal yi daal ñoom ak sëriñ tubaa rek ba faw jërëjëf